ndax doole ji laaj Cellou Dalein Diallo moo ko yor mais bi ñëwee deux mille vingt ñu bàcc bàccal ko bàcc yu méttee métti moom Alpha Condé dañ ko bàcc bàccal bu baax mais comme bii paas Cellou Dalein Diallo yeewu na ci sàcc gi xam na ni gars dañuy doxale mu teel leen a jóg wut logiciel am wut ay expert ñu daal di centraliser daal di boole li mu am yëpp. ci bureau de vote bu nekk yónnee na fa kenn jël trente deux mille représentants dans les bureaux de vote ñu ko toogal jël PV yi yónnee ko état major am seen logiciel bi génne ko selu dale gagné pour bañ ñoom ñu ñëw wax leneen mu leen mais man gagné na mu jëkk jëkkalanteeg jom ndax xam na leen xam nit xam jikkoom xam jikkoom moo ko gën xam na seen jikko sàcc googu ñu yore ay sàcc yu bon lañ mu xam seen jikko yu bon yooyu mu daal di jóg boppam wane li mu am loolu koy warul naqari kenn ci tàng-tàng bi rek ñu ne way seelu li wax waru koo waar daa war nekk ku muy nekk ay bandits lay nekk ay voyous ay seytaane ay sàcc ku leen di nekk pour ñu ne gañe nañ te gañewuñ ngay nekk ay sàcc ñu amul jom amuñu ngor C'est un il nekk leen pour ñoom ñu wax wax la yow gagné duñ ko ba wax mo gagné sama gaay rek jaxlé mais bon, nak CEDEAO Union africaine Alpha Condé jox leen ay ay millions ñu séddo ñu leen ci hôtel Nous sommes tous benn hôtel bu ñuy wax Palma Cayenne benn seni bis fa nekkoon te dajale ay résultats di ko ñu bett leen ña ñu bett leen ci beneen hôtel kalum ñu séddoo xaalis ndax lan ndax ñoom bu ñu Guinée xam nañ ne Alpha pare na pour jënd leen luñ bëgg mu jox leen bu ñibbee ni Alpha moo sommes pour ndax waa e e président CEDEAO yeewu leen yi Guinée ay sàcc lañu ils sont corrompus

ayena ñan ñu voté Sénégal tej frontière yi jaay leen doole sàcc leen waaye malgré tout serou dana Diallo gagné na nak Alpha Condé xamné na ne gagné Sénégal mais yoyu bu jàllee cdao ngir yàlla dimbali ñu Union africaine dimbali leen ñu dimbali leen Guinée Guinée sonu nañu le peuple guinéen est fatigué cdao dafa am solidarité bu leen sétane Guinée. Nous basculer dans la violence Nous, nous dans ci ay avons non droit à droit Satan. Satan ci le saute le président Le président ni mout yeewu leen jàppale Guinée ndax jàppale Guinée du Guinée Il Afrique l'image de l'Afrique une image d'une Afrique respectée dañu war a jox l'Afrique. Afrique Afrique des fiers guerriers dans les savages ancestrales Afrique Bobu, lañ ni dañ ko Afrique boobu wul sétane ay domam ñu di len note di len mugal ko def Alpha Condé amul jom amul ngor amul full, amul fayda di ay xalé yu ndaw ay bébé il les tue ay bébé ay xalé yu ndaw mi di non jog le monde entier jàppale Guinée ngir yalla ndax Afrique méritéwul lii ndax Guinée jëm ak président El Hadj Cellou Dalein ak Guinée yi bëgg a liggéey ak moom Alpha Condé sur la touche Alpha Condé na dem na dem a dem a dem jërëjëf.